xam naa heure baa ngi kii te mbokk yi dañoo yàqam fu ñu yeewi gaal yi léegi incha allah.
li nga waxoon rasul xulwatuna très bien mooy topp yonent bi thème boobu la ñu jël ñu ñu woyee yonent bi incha allah du ma xóotal xam naa dama jox mbokk bi mu gën ñu ko leer incha allah léegi affaire bi ñaari kii lay doon ñaari je sais pas comment dire ñaari.
Xaaj, ñaari xaaj.
kii quoi première partie bi bu ñu ko waxee ba pare incha allah ñu def pause comme ni ñu ko aaroo di def deuxième partie bi tamit ñu jëlaat ñu ko pare après ñu jël salaamaaleykum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تمبالي turu borom bi tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sun yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñëw nañ fii ci sunu kër benn mbokk pour fàttalante ak ñoom tomb bi nga xam ne moom mooy ar rasulu qudwatuna mooy yonent bi mooy sunu royukaay yonent bi moom mooy kun war a toppandoo tomb boobu nag mbokk bi moo ko jël moo ko tànn waaye wax dëgg yàlla bi ma ko waxee ma xool ko xoolaat ko xam naa ne foofu la nit dina ne lu tax ma wax foofu la mooy suñ demee ba réere yonent bi nu yàlla yónnee woon ñu réere ko wala ñu koy tëkkaleeg ñeneen wala ñu koy dendaleeg ñeneen kon war nañu tànn tomb yu mel nii waxante koog nit ñi fàttalante ak ñoom ba nit ñi xamaat kan mooy yonent yàlla muhammad ba nit ñi xam lan moo tax buur bu tol ne yàlla mu tànn yonent bi yónni ko ci ñun loolu doyul mu ne nu yonent bi dong laa bëgg ngeen roy yonent bi dong laa bëgg ngeen toppandoo ci alquran kon suñ demee ba nit ñi lëndëm xel yi réer nit ñi gëlëm war nañ leen fàttali lool tey ci àddina bi wala bu ñuy wax àddina bi sax àddina bi day vague ci ñun ci Sénégal ku nekk am nga koy toppandoo am na sax ñuy toppandoo waali nga xam ne démb la waali wala wala li moo xamul am na sax kooku ñooy toppandoo te démb la judd ñu bàyyi ki yàlla joxoñoon baaraam ne kii neenu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla ne yonent baa ngi nii moom dong laa leen xoolloo xoolloowuma leen keneen ñu ñu dem tey di xool ñeneen di toppandoo ñeneen ñii di toppandoo ay góor jigéen ñii di toppandoo ay mbër ñii di toppandoo ay musicien nga gis koñ bu nekk ñu fay bind ay banderole ay fans club rombaguma benn koñ ñu bind fans club mu Muhammad wala yéen romb ngeen ko romb ngeen ko yéen gisaguma ko rombaguma fenn ñu bind fans club mu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te pourtant loolu moo jaadu de ñun ñëpp dañu war a nekk ay fansam waaye fans club bu Balla Gaye am na mbër bi dëkk Gunaas nu mu tudd guy gi ah fans club bu guy guy fans club bu fans club bu fans club bu fans ana fans club bu Muhammad yi ci jigéen ñi boo fa demee doo fa fekk fans club bu Muhammad ci góor ñi waxi noppi firawna sax am na ay fans club firawna day gis ñoo xam ne firawna lan mooy seen idole moom la ñu gëm nga gis ñoo xam ne satan am na benn mouvement bu juddu Égypte xam nga lan lan lan lañ fans club bu satan mu ngi ci université yi commencé xam naa fii la jëm si kon dina jaadu suñu demee ba gëlëm ñun jullit yi surtout ñun ndaw jullit yi ñu réer ñu réere kan mooy Muhammad ñu réere suñu diine dina jaadu ñuy jël ay minutes ay waxtu yu ndaw di ci fàttalante suñu bopp kan mooy yonent yàlla Muhammad moom lan lan war a féete moom lan la war a nekk ci ñun lan lan war a jàng ci moom lan lan war a comprendre ci moom Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo dañu ne tomb bi day nekk ñetti tomb waxtaan bi day nekk ñett tomb bu njëkk mooy ar rasulu qudwatuna yenent bi mooy sunu royukaay ñaareel bi mooy al iqtidaau bir rasul ñun dañoo war a roy yenent bi ñetteel mooy kayfa naqtadi bir rasul naka la ñuy royee yonent aleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi jullit yi pour ñu jëriñu pour ñu jëriñu pour ñu jëriñu ñun ñëpp suñu waxtu yi ñu fi def bañ a neen mooy li ñuy wax waxuñu ko pour mu dugg ci nopp ndeyjoor génn ci nopp càmmoñ abadan loolu indiwun fii xam nga lu fi indi pour ñu xam kan mooy Muhammad ñu natt ko suñu kanam ñu xool moom ak ñi ñu topp kan lañu war a topp xam ngeen Muhammad fan la tàmbalee ak ñun yéen ñi topp fii di ma dégg xam ngeen yonent bi kan la tàmbalee ak ñun xam ngeen kan ma ko xam bismillah bi nu juddoo bi nu juddoo bi nga juddoo nekk liir bu tooy xepp ci la sa papa dem woo imaam ne ko am naa doom sama imaam bi mu ñëwee yëkkati la yëkkati liir bi turu Muhammad ñaari ñaari nopp yëpp turu Muhammad la ci la ci nodd la ci tufli xam ngeen ci nan ci nodd ak lixaam nodd ak lixaam turu kan moo ci nekk noo dog li xam turu kan moo ci nekk turu Muhammad am na keneen kan keneen la ñuy wax turam ku dul Muhammad nit ban nit la ñuy wax turam ci nodd ak li xam ban nit pourtant mënoon na wax sa papa du mu li xaamee allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah du mu noddee ba rek ashadu an mu ne wa ashadu anna abdallahi njaay mooy baayam est-ce que wax nañ lool dañ ne wa ashadu anna muhammad xoola bi nga nekkee liir nga commencé dégg muhammad sa turu papa turu muhammad nga njëkk a dégg walaa ngay dégg dégg sa turu papa sa turu yaay turu muhammad nga njëkk a dégg man tur turu muhammad nga njëkk a dégg est-ce que jeex na déedéet julli jot liir boobu liir boobu imaam tuddoon liir bi léegi màgg na commencé na dem jàkk ci ban tur lañ ko woowee na ñëw julli Muhammad bi ñuy liqaam ban tur lañ wax Muhammad ci biir julli gi taaya kan lay wax Muhammad mu des mu dugg biir bàmmeel bu ko nit ñi dugalee bàmmeel bay ñibbi malaaka yi ñaari malaaka ñëw yëkkati ko mu toog ñu ne ko Muhammad moomu nga doon dégg loo doon wax ci moom bi nga nekkee ci àdduna kooku jar na xam wala jarul xam dama leen laaj question bi kooku jar na xam wala jarul xam wallahi ku ko xamul boo duggee bàmmeel doo taxe xam nga kan la ñuy mbugal kañ la ñuy commencé mbugal nit xam ngeen kañ la ñuy commencé caw ay nit ci biir bàmmeel mu dugg bàmmeel ñaari malaaka ñëw yëkkati ku mu toog ñu ne ko maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada loo daan wax ci muhammad mi ñu wan la jëmm ji muhammad mi loo daan wax ci moom foofu soo ko xamul rek alko kon doomu ndey yi mbokk yi kooku dañ koo war a xam kooku dañoo war a jàng dundam kooku dañ ko war a roy kooku war dañ ko war a toppandoo kooku ñun dañoo war a jéem mel ni moom parce que ku ko topp rek baax moom dong la yàlla joxoñ baaraam ci alquran ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee rek jub kenn kese kooku la amul keneen kon laaj na suñ demee ba àddina bi tollu fii tey nit ñi réere muhammad ku nekk di topp ku la neex ku nekk di déglu ku la neex ñu delloo siwaat nit ñi teg leen ci raay bi ñu xam ne fa la ñu jëm alaxira kenn du fa texe lu dul ku jaar ci mbooloo muhammad wallahi mbooloo bu leen neex bokk leen ku leen neex roy leen ku leen neex toppandoo leen waaye wallahi boo duggee bàmmeel rëccu loolu leer na wala leeru kenn dong la ñuy laaj biir bàmmeel turam kenn muy muhammad amul keneen ku la neex waxal turam ku la neex fii ngeen toog ku leen neex xalaat leen xanaa kooku kooku du fa tus kooku ngay xalaat am na koy xalaat kooku ngay xalaat du dara biir bàmmeel du dara yowmal qiyaamati parce que yàlla reconnaître ko xam ngeen kan la yàlla reconnaître muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong la wax ne ëllëg yowmal qiyaam ku ko xamul di nga matt sa ñaari loxo yowma yauddu zalimu ala yaday yowmal qiyaam yàlla nit day matt ñaari loxoom ñaari loxo fii tey ci àddina nit bu amee problème ñaata loxo lay matt ñaata loxo lay matt benn baaraam parce que ñaari loxo yi xëju si gémmiñ yowmal xiyaam ñaari yëpp ngay matt yàlla moo ko wax yowma yauddu zalimu ala yadayhi lan lay wax su ma xamoon ak a neexoon ma jaar ci yoonu yonent bi kon nanu jéem dindi barrières yi dindi barrage yi dindi farfarloo yi jéem a farak muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ dindi barrage yi nañu dindi li ñu teree yegg nan ko teg fee aduna la rek ay fan ay fan la rek ay minute ay diir yu néew ñu yenu la fii léegi léegi yóbbu la ci morgue bi ñu ñëw ay seconde ci morgue bi pare ci yow yóbbu ba ci biir bàmmeel gas ba mu xool suul ñëpp ñëwaat toog fii lan lañ la bàyyee kan lañ la bàyyee lan lañ la bàyyee kan lañ la bàyyeel kon bu nu nax suñu bopp olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo faju bu ñu nax suñu bopp nax suñu bopp mooy ñu nekk fii ci àddina bi di kër kër yi di yëngatu ci loo xam ne amul njëriñ di yëngatu ci loo xam ne amul benn njëriñ mbokk jullit yi la sakka anna rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huwa a'zamu insan fi taarixi albashariya mbokk jullit yi yenent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lu kenn dul sikki sàkka lu kenn dul naataable demal ma dikk di ñëw léeg-léeg nga dégg ñu ne benn waay non woote na fii dem na fële ma ne yooyu yëpp ay wax la yenent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sikki sàkka amul ne moom mooy doomu aadama bi nga xam ne moo gën a màgg ci humanité bi benn waaye dafa bind benn téere tuddee ko alxaaliduuna mia téeméer ñi histoire bind seen tur donte ne dee nañ liñ fi bàyyi woon mu ngi exi mu ngi dund ba léegi xam ngeen waajooju du sax jullit ab nasaraan la waaye nee na azamuhum muhammad ki ci gën a màgg mooy yonent yàlla muhammad su fekkee nasaraan yeeg yahudi yi ñoo xam kan mooy muhammad kon ñun nag est ce que yàlla na kon sikki sàkk amul azamu insaan fi taarix ki gën a màgg ci nit ñi ci histoire histoire doomu aadama gën a màgg ci jikko gën a rafet bind mooy yonent yàlla muhammad fa kayfa laa lu tax loolu wa qad qaala fihi rabbuhu jalla wa ala wa innaka la ala xuluqin azim lu tax yonent bi du mel noonu ndax bi yàlla moo ko préparé yàlla moo ko yar yàlla moo ko tànn yàlla moo ko tàggat yàlla moo ko defar ba mu mel ni mu mel ba mu nekk modèle yàlla indi ko teg ko sunu kam kanam ne eh, topp leen kii atiu llaha wa atiu rasul ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul e yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent topp leen ci ginnaaw seen ginnaaw kon yonent yàlla muhammad wa hadha al fadlu lahu sallallahu alayhi wa sallam ngëneel googu yàlla defal ko nekkul àdduna kese de fi dunya wal axira yéen loolu la boole dafa boole ngëneelu àdduna boole ngëneelu alaxira même tey àddina bi ñi fi am dara nekk ay jullit nekk ay borom xam-xam wala ñu nekk ñu ay kilifa diine wala ñu nekk ay ay ay ay loo xalaat ne loolu ñooñu xam nga lu tax ñu am li ñu am bëgg bi ñu bëggoon Muhammad moo tax ñu am loolu. topp biñ ne ñoom biñ doon wax ne ñoom dañoo topp Muhammad moo tax nit ñi topp leen kon ma ne jaadu na waxtu yii nu toll. nga xam ne nit ñi réer nañ gëlëm nañ kenn xamatul koy topp kenn xamatul koy roy ñu fàttali thème yu mel nii ndax nit ñi del siwaat xam ne yonent yàlla muhammad kese kese lanu yàlla xoolloo yàlla aboubacar li muy màgg omar ousmane ali ñoo ñëpp li ñuy màgg yàlla waxul nu xool leen wala wala yàlla wax na ko kenn dong lanu yàlla xoolloo mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana dëgg-dëgg su ngeen bëggee texe topp leen muhammad su ngeen bëggee dugg aljanna jaar leen yoonu yonent yàlla muhammad jeex na loolu tax màgg googu mu màgg moom yonent yàlla muhammad rëy googu mu rëy ci àdduna ak àllaaxira moo tax nga dégg moom yonent bi mu ne ana man yonent sayidu waladu aadam mu ne doomu aadama yëpp maay seen sang maanaam nit ñëpp bu ñu àndoon di dem guerre yonent yàlla Muhammad mooy yor drapeau bi nekk ci kanam maay seen sang ana sayidu waladu aadama yowmal qiyaama nee na yowmal qiyaama bu ñëpp dekkee taxaw ci kanamu yàlla balaa ñuy wax ak kenn dara man mooy yonent bi la ñuy njëkk a waxal awwalu man yashuq anhul qabr man maay njëkk a dékki maay njëkk a génn ci suuf nit ñi bu ñu faatoo ba ñu suul leen ci suuf si kenn nekkatu fi bu ñu bëggee dékki yàlla day woo jibril ne ko demal nga indil ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam su jibril wàccee ci kaw suuf du xam fan la bàmmeelu yonent bi nekk day delluwaat lan moo tax xamul fu bàmmeel bi nekk mooy suuf sëpp dafa maasaloo ndax amatul lu fi kawe amatul kër amatul dara lépp terrain nii la suuf la rañ moo tax xàmmewul bàmmeel bi fu mu nekk day delluwaat moom jibril ci borom bi ne ko wàcc naa ci kaw suuf waaye gisuma bàmmeelu yonent bi mu ne ko dellul soo demee di nga ko gis bu jibril nee waat cëpp ci kaw suuf day seen ñaari lampe projecteur yu weex tal tiim bàmmeelu yonent bi di ko leeral mu wàcc ci diggante ñaari làmp yooyu daa di fëgg suuf si këng këng këng këng yaa muhammad mu ne ko ah la bayk mu ne ko jógal wu sa wuy sa borom yonent bi ne tëll génn xar suuf si sikkim bi taq jibril di ko faxas jibril di faxas sikkim bi xam nga loro mu ne man maay njëkk a dekki ëllëg maay kii njëkk a génn ci bàmmeel ana ñeneen ñi ana ñu ana ñi ñuy topp fii ana ñu boobu kenn xamul lu xew yonent yàlla muhammad mooy njëkk a dékki mooy njëkk a sol yére ibrahima ci tegu mu jiitu jëm aljanna su ñëwee day fëgg këng këng awalu man yashuqu anhu alqabr wa awalu shafiin wa awalu mushaffi mu ne man la ñuy njëkk a ramm maay njëkk a ramm mooy fëgg buntu aljana kii garde aljana mu ngi tudd ridwaan Ridwaan ne ko kokkan la mu ne ko Muhammad mu ubbi bunt bi ne ko yow lañ ma waxoon balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare ndeysaan foofu lan la yonent bi bu gestoo gis ñu ubbi aljanna mu gestu ginnaawam xool dekkil nañ mbooloo mi mu xool gis kenn solul yére tout le monde koo xalaat rek solul yére mu ngi fi taxaw ci mbooloo mi koo xalaat am na koy xalaat ah kooku solul yére mu ngi nii taxaw kooku sa xel dem waaw mu ngi fii ci mbooloo mi solul yére yonent bi xool leen ak naaj bi ni mu tàngee ak ñaq bi am na ñoo xam ne amuñu fu ñu taxaw ci kaw nit ñi lañu taxaw ndax am dafa bëri am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw ci kaw tànku nit ñi ñi ngi ci kaw pooju nit ñi amuñu fu ñu taxaw ndax rek rek loo yonent bi danaan jibril ummati ummati sama xeet sama xeet xoolal waxul waxul fatima de ndeysaan mënoon naa ne sama fa ana fatima waxul Hussein waxul Hassan waxul Ali waxul ala bayti lan la wax ummati sama xeet sallallahu alayhi kon kooku war nañ koo xam ki nga xam ne ëllëg bi jafe-jafe yi amee moom xalaatul boppam moom ñun la xalaat ñun naka la ñuy def ba dugg aljanna naka lay def tey ba nun nu dugg aljanna kon kooku war nañ koo xam mbokk yi ar rasul qudwatuna yonent mooy sunu royuwaay lan mooy royuwaay lan mooy royuwaay ndax dañoo bëri luñ koy dégg ñun diw la ñuy roy ba tax na sax yenn saa yi buy sol mbax na nga dem ut mbax na bu mel noonu ñun diw la ñuy roy yenn saa yi sax ni muy watee sikkimam bi nga watee noonu sa sikkim ñun diw la ñuy roy yenn saa yi sax yére bi muy sol nga dem ut ya zaaru yére bu mel noonu lan mooy roy mooy toppandoo mooy jéem a mel ni waaj jéem a jël dundinam imaam ali ci ci naaj bu tàng jër mu ñaan ndox imaam ali ibnu abi talib mu ne may leen ma ndox ñu indil ko ndox mu sedd mu teg ci gémmiñ gi benn teggi daal di guuxaat ñaar teggi guuxaat ñetti teggi après mu daal di muuñ reetaan sahaaba yi ne ko alu xew mu ne nii laa gise woon yonent bi di naane moo tax ma naanee nii loolu mooy toppandoo ah loolu la tukulóor yi naan ñimtinde toppandoo ñun dannu sant nanu toppandoo yonent bi ci lépp lu mu doon def kon yonent bi mooy sunu royukaay moo tax keroog bi julli wàccee ci moom mu julli ba pare jiite sahaaba yi dafa geestu jàkkaarloog ñoom xam ngeen la la leen wax benn baat sallu kama raaytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee ma julli point parce que moom mooy moom la ñuy toppandoo keroog ca aj ca arafaat naaj bi tàng ba yonent bi ñaq bi di siit sahaaba yi xool ko yërëm ko aboubacar jël benn sër sër bu mag bu yaatu ñu takk ñeenti côté yi ay bant ñu tiimale ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour naaj bi wàññeeku keroog mi ngi taxaw naan gaa yi xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla xool leen ci man nu may jaamoo yàlla ngeen defe ko noonu saxaaba yi loolu la ñu rawe woon mooy ñoom seen lépp yonent bi moo leen doyoon seen lépp ñun ñun ñun ñun tey lan moo nu tardeel da ngay war a def dara au lieu nga seet nu ko yonent bi defe woon nga ni ñun ñun ñun sunu ñoom maam sama maam ñun sunuy maam wala ñun sunu xeet waaw ñun sunu famille loolu moo nu tardel te du nu nekk ay jullit mukk lu dul dañoo bàyyi yooyu bàyyi sunuy maam sunu xeet sunu famille sunu dëkk sunuy mbokk nii lañ doon defee loolu ku ci nekk ba léegi ceddo nga ba léegi yaa ngi ci jaahiliya dugagoo ci lislaam dafa am benn waay boo xam dafa am doom seen dëkk kuñ fa ngénte da ngay dee waa ji am doom fii Dakar ñu téléphoné ko ne ko sa jabar am na doom mu ne maa ngi ñëw bu muy ñëw mu jënd xar yóbbaale bi mu wàccee ci seen kër mu wàcc ci oto bi ñu wàcce xar mi papaam ne ko lu xew mu ne ko ah da ngeen maa woo ngeen ne ma sama soxna am na doom ñu ne ko waaw ñu ne ko xar mi nag mu ne damay ngénte ñu ne ko xanaa da ngaa dof xanaa da ngaa fàtte fii li fi xew mu ne lu fi nekk ñu ne ko fii xamoo ne ku am doom boo koy ngénte boo rendee xar mi ba pare rek sa doom day dee xanaa da ngaa fàtte mu ne fàttewu ma ko de waaye man loolu gëmuma ko ñu ne ko ah mu ne waaw mu ne man gëmuma loolu yow xar mi papa ji ne duma ko wax kenn ndax xam naa ne doom ji day dee duma ko wax kenn tudd bi jot kenn ñëwul mu xëy suba di xaar kenn ñëwul mu tudd xale bi daal di rendi xar mi xale bi dee ñu ne ko gis nga dangaa dëgër bopp xool nan la ko mu ne leen yéen te ngeen a noppalu man li ma sama diine sant loolu lay def xale yi bu ñu doon nekk téeméerit dañuy dee waaye damay rey xar ndax yi loolu la ma yonent bi sant aduna gu aduna daal di yaatuwaat mu nekk fa quelque temps daal di ñibbi si fii ñu woowaat ko sa jabar am na doom mu jëndaat xar mu ñëw ñu ne ah yow xanaa yow yow yaa dëgër bopp waaye demal di nga xam ne fii li fi nekk ci dëkk bi ku ko def di nga ko gis mu ne waaw papaam daal di waxaat duma ko wax kenn ndax xale bi day dee bis bi jot mu toog xaar gisul kenn mu tudd xale bi rendi xar mi ah ñu toog tuuti ñu ne xool leen ñëw gis xale bi mi ngi mi ngi mi ngi sànni tànk yi minute bu nekk ñu ñëw xool di xaar mu dee minute bu nekk ñu ñëw xool ba mu mat ñeenti weer ba mu mat at ba mu mat ñaari at jabar ji ëmbaat mu defaat noonu ñuy xaar mu dee kooku daal di am ay weer am at ñaari at jabar ji ëmbaat waaye ne ah ah yéen te ñoo essayé daa mel ne gàllaaj ji toj na de dëkk boobu léegi soo ko demee ku am doom di nga di nga di nga di nga tudd di nga tudd waa jooju moo ko fa dindi parce que wax leen ni ay bidaa ay caaxaan day sax day sax tànkam mooy li ngay dégg léegi kenn du ñaan kër yi xal guddi kenn du àbb puso guddi kenn du yenu ci ndomb ay góor kenn du jaale ji guddi kenn du gis nga yooyu yooyu ay bidaa la loolu du diine te loolu moo nu tardeel loolu dëkk kër goo dem rek am na am nañu bidaa waaw kër goo dem nag famille boo dem am nañu bidaa hay goto watta ɗum ɗo jamma Hmm, minen de wuro amen Ah, mo reenaaki yooyu mani du diine islam mooy li yàlla yónni woon yonent yàlla muhammad lépp loo xamante ne du loolu dafa wuuteeg moom boo ko boo ci duggee da lay tardeel ci diine ba pare xam nga lu mu lay jural yow doo jullit gis nga yooyu ñuy xeeb ni ku ko def rek doo jullit ndax yàlla doyu la yonent bi doyu la yonent bi su la doyee lim wax moom ngay jël su la doyee su la yonent bi doyee loolu ngay def su la keneen doyee nag kooku lim la wax loolu ngay jël kon nañu xam ne yonent bi moom kenn moom mooy sunu royukaay moom lañ war a toppandoo ci diine ji booy tëdd nooy tëddee soo yeewoo nooy jógee boo jëlee satala bi di dugg ci duus bi nan ngay duggee soo duggee nooy toogee sooy génn nooy génnee sooy jàpp nooy jàppee yooyu yëpp yaa ngi koy jëlee ci yonent yàlla Muhammad ba ba ngay julli ba ba ngay xëy di génn kër gi di dem jàkka ja boo demee jàkka ja ni ngay jullee ni ngay duggee jàkka ji ni ngay toogee ba ba ngay dugg ci oto bi di xëy di liggéey li nga war a liggéey li ngay lekk li ngay naan yére yi ngay sol dàll yi ngay sol dàll yi ban tànk moo war a njëkk a sol yére yi ban loxo moo war a njëkk a dugg tànk tubéy ji ban tànk moo war a njëkk a dugg alhamdulilah yaxfir allahu lana wa lakum loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne mas gis nga léegi-léegi mu ngi nii yonent bi moo ne kutti sóoli na wax alhamdulilah après yéen ngeen ne ko après waaw voilà loolu la yonent bi la ñuy roy ci lépp waaye ti sol merde pardon hein waaw kon dañ ma signalé ñu ne ñu def pause waaw bu tem bi jeexul rek yow la dégg alhamdulillah mbokk yi ñu ngi ci tomb bu mujj te mooy kayfa naqtadi بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم نكا لاني روي سنو يونت محمد صلى الله عليه وسلم نكا لان كوي روي loolu danañ ko tënk ci fukki tomb ak benn fukki mbir ak benn yoo xam ne ci gàttal yooyu ñun ñi toog fii bu nu ko jëlee def ko ci sunu kanam di ci toppandoo yonent bi insha allah ci sunu dund yëpp danañ nekk ay nit ñoo xam ne yonent bi la ñuy roy est-ce que dégg nga li ma wax lan laa wax lan laa wax kan mooy tontu lan laa wax fii ci biir mbooloo mi li ma wax léegi léegi lan la kan moo may tontu bismillah
am na ak benn yoo xam ne bu ñu ko toppee loolu mooy rajo yi bi alayhi salaatu wa salaam loolu dina nekk dana bokk du lekk lépp mais dana bokk ci li lay dimbali nga jege ci roy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yooyu bi ci njëkk mooy ak taqwa nañ jéem a ragal yàlla mbokk yi ñi ñi toog fii kenn ku ne ci ñun jéemal ragal yàlla ndax yonent bi kat yàlla moo ko woon ne ko yaa ayyuhan nabi ittaqillah yow yonent ragalal yàlla yàlla woo ko ne ko fastaqim fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatxaw innahu bima taamaluuna basir yonent bi daal di tiit bi jaaw yàlla ne ko jubal xocc comme ni ma la ko sante yaag ñi gëm yàlla yonent bi tiit bi jaaw kon yàlla da ko ne ragaleel yàlla te jub yonent bi bi jaaw mun bëggee roy yonent bi dañuy ragal yàlla lan mooy ragal yàlla mooy imtisaalul awamir waccinaa bi nawahi mun bëggee ragal yàlla mooy dañuy def li yàlla santaane bàyyi li mu tere loolu mooy ragal yàlla ku képp koo xam ne ci ñun li yàlla santaane yaa ngi koy def li mu tere bàyyi nga ko yow ragal nga yàlla ñaareel bi mooy azzuhd nanu déem a dëddu àdduna léeg-léeg foofu am ñu fi juum dafa ne dëdd àdduna mooy nga toxoo ci ville bi dem ba ca digg àll ba nga ut fa benn néegu ñax nga ut fa der ut fa benn guttu kireen bu ndaw wala satala ut fa juróomi gerte juróomi biskit bu añ jotee nga jël ñaari ñaari gerte lekk naan tuuti ndox su reer jotee nga coppati ñaari biskit lekk naan tuuti ndox ñu ne loolu mooy dëddu àdduna déedéet loolu dëdd loolu ndof la loolu ak ndof la dëddu àdduna mooy xéewal yi yàlla jox la ci àdduna yàlla daf la kaa jox pour nga xéewloo ko nga dund waaye bul ci ëppal lu nekk na am fu mu war a yem xayrul umuuri aw satuha digg doomul digg doomul lu nekk na nga ci yem na nga nekk ci digg bi loolu mooy dëddu àdduna waaye war nga takk jabar war nga liggéey war nga am kër war nga salu war nga lekk war nga naan waaye digg doomul yooyu yëpp na nga nekk ci digg bi bul ëppal bul ko ëppal bul ko jaay ñi nga nekkal loolu moom mooy az-zuhd te yonent bi noonu la meloon moo nu gën a ragal yàlla ñun ñëpp est-ce que amul soxna ay au contraire ay est-ce que amul doom ay est-ce que amul woon kër est-ce que liggéeyul est-ce que jaamuwul yàlla ah kay kon loolu la ab jullit di def da ngay liggéey da ngay takk soxna da ngay am kër da ngay am ay doom waaye dëddu àdduna jàpp ne yenn saa yi nga dégg ñu ne sëriñ diw dafa dëddu àdduna moom du sax lekk du naan du takk soxna léegi mu dof parce que loolu dof moo koy def bu fekkoon ne loolu baax na kon yonent def ko ñetti nit danoo dégg yonent bi ni muy jaamoo yàlla ñu ne day woor di dog day julli bu sonnee tëdd ñu ñu ne ah yonent bi yàlla baal na koy bakkaaral ndax yàlla moo ko wax ci suratul fatih li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yonent bi lu ko neex mu def ñun yàlla baalunu kenn ki ne man dootuma nelaw guddi keneen ki ne man sama jabar yëpp laay sori keneen ki ne man dootuma lekk bëccëg damay woor ñooñu li ñu wax baax na wala baaxul dama leen di laaj ci wàllu jaamu yàlla ñooñu li ñu wax baax na wala baaxul bañ a baax dootoo jege soxna yi ngir jaamu yàlla dootoo nelaw guddi ndax jaamu yàlla dootoo lekk bëccëg da ngay woor ndax jaamu yàlla loolu baax na de waaye yonent bi mu ko déggee da leen woo bañ ñëw mu ne dégg naa li ngeen wax maa leen gën a ragal yàlla damay woor di dog damay takk soxna damay woor di dog damay naafila su ma sonnee nelaw lii ma indi lii ma indi muy sunna muy lislaam ku ci d'accordul bokkoo ci li ma indi man yonant lii yàlla yónni ma ku ci d'accordul ba dem indi leneen yonent bi ne bokkoo ak man hum, allahu akbar kon ñi bokkul ak yonent bi bëri nañ de wala ak bëri ay sénégalais yu bokkul ci waa kër yonent bi loolu du ci du ci wax de du ci wax waaye ci lan la ci ay jëf ci ay jëf la nit di jëf dootul bokk ak yonent bi ndax yonent moo ne li ma indiwul ku ci d'accordul bokkoo ak man kon nanu bàyyi xel loolu lépp looy def fexeel nga def ko ni ko yonent bi defee woon ñetteel bi mooy atawaado mbokk yi nanu suufe nanu wàcce sunuy mbagg ngand ngandlu yàlla bëgg ko léegi gis benn waay boo xam ne day sol bëdi bu xat génn dënn mën na am sax léegi gars yi bu ñuy entraîné lan la ñuy yëkkati ay poids yu ngand pour lan waaw nga gis waa ñu ne ñu ne gaañ temps yi zare nga ko tey mu ne waay daa jëfaay naan nii non non waa ji sax dafa jàpp quoi mu ne waay nga day jëm a changé ba changé baat bi ah ndeysaan sax yee koy lekk rek ay ay entre booy entraîné sax yi dañuy ree sax yi dañuy kontaan big waaye daan ne seet tut tut tut mi ngi mel ne rek ndeysaan xar mi ngay jox ngooñ ak dugub ak ak xar mi moom di reew reewlu rek ngay ree rek allahu akbar xar mi di cëppi cëppi di jéem a fël di arrière naan da lay mbëkk nga naan ko boobu xar bi xamul lu xew wala ok noonu la noonu la tamit ñun noonu la nu mel bu nekkee di entraîné di nganda ngandalo bàyyi li yàlla wax ndeysaan benn waay dafa ñëw kër yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ñëpp toog mu ñëw rek di nuyoo ku mu nuyu rek ku ne ayya ndax loxo bi nu mu dëgëree ak nu mu amee ay dagg-dagg dëgër këgg njagas ba mu egsi rek nuyu yonente bi daal di génn kaay ni sha yonente bi ne lan la ñu ne loxo bi mu ne ah bu fekkee loxo bi de li ko def nii ci lislaam la yàlla bëgg na loxo bi maanaam loxo bi buy dëgër yaram bi buy dëgër ngay am doole di jàpp na fekk diine tax na fekk ngay préparé pour ëllëg buñ nee hayya alal jihaad nga taxaw ci kanam na fekk ngay préparé da ngay entraîné na fekk pour bu bilaal bilaal bu ne asalaatu xayrun min annawm day fekk préparé nga yow ragaloo agresseur yi nga génn jàpp utali jàkka ja waaye bu fekkee da ngay entraîné pour bëri waaye da ngay entraîné pour xale yu jigéen yi xamal ne sa entraînement boobu sax yaa sax yaa ngi lay xaar sax yaa ngi lay xaar sa entraînement fexeel mu nekk ngir yàlla li i'la i kalimatillah pour lan pour kawel kàddu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi atawaado mooy suufe suufelu yonent bi nee na man tawaada lillah rafaahu llah ku suufe suufelu yàlla yëkkati la jullit du nganda ngandalu nañu roy yonent bi ci suufe moo gënoon ñëpp waaye bu ñëwee ci mbooloo kenn du xar mbooloo mi tegal ko siis ne ko kaay toog bu ñëwee fekk nit ñi fu ñu yem foofu lay toog tàmbalee foofu benn waaye ñëw na rek kër yonent bi daw rek xëcc loxo yi bëgg a fóon mu ne ko lan la waa ji di lox mu ne ko yow yaay sañu sang mu ne ko déedéet du ma sangu kenn mu ne waa ji laa tatruuni kama atarati nasara isa bnu mariam bu leen ma jay comme ni chrétiens yi jaye woon isa chrétiens yi dañoo jay isa ba ne doomu yàlla la mu ne innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluh man jaamu yàlla la na ngeen ma wax jaamu yàlla yonent yàlla loola moo tax alquran 114 saar yi place yi am importance yàlla di fa wax ak yonent bi abd la ko woowee tabaraka allazi anzala alfurqan ala abdihi subhana allazi asra bi abdihi wa innahu lamma qaama abdullahi araayta allazi yanha abdan yëpp yàlla de yonent bi nee na man tur bi gën a gën a bëgg mooy jaam ñu ne ma jaam mooy abdullah ndax suufe suufelu rek sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit bu ñu bëggee roy yonent bi nanu suufe suufelu comme moom ñeenteel mooy asaxa nañu tabe tabe jullit day tabe jullit du ŋot jullit du nay ndax albaxiilu laa yadxulul janna ku nay du dugg aljanna yonent bi dafa tabe woon ci lépp dégg ngeen ñu ne weeru koor bu ñëwoon yonent bi mooy gën a tabe ngelaw li xam nga ngelaw dafa tabe ñun ñëpp a ngi noyyi su ngelaw nayoon day xëy suba daan ne tey kenn du noyyi damay grève waaye li yonent bi ni ngelaw di tabe yëpp nee nañ yonent bi moo ko gën a tabe kon boo bëggee roy yonent bi nekkal tab yonent bi nee na li alagoon gaa yi leen jiitu innama ahlaka man kaana qablakum as-suh li alagoon ñi leen jiitu mooy nay mooy ŋoot mooy bëgge suñu bëggee roy yonent bi nañ ko roy ci jikko boobu juróomeel mooy al afu nañuy baalaate yonent bi da doon baale yonent bi musul fayu musul fayu sallallahu alayhi wa sallam lu nekk lañ ko def ci kaw suuf loo xalaat rek def nañ ko yonent bi fan la yonent bi juddoo màkk fan la màggee màkk waa màkkaa ko génne te biñ koy génne dañ ko bëggoon rey yàlla rëccal ko mu dem Médine keroog bi mu demee ba am doole mu ñëw Bilaal yéeg ci kaw kaaba gi nodd ñu génn yéeféeri màkk yépp ñu taxaw mu ne leen maza tazunnuuna anni fa'ilun bikumul yawm lan ngeen yaakaar ne tey loolu laa leen di def ñu ne ko axun karim wabnu axin karim baal nu baal nu baal nu mu ne izhabu fa antumu tulaqa dem leen baal naa leen yonent bi nekk na ci suufu garab di nelaw njagana yoo jaasi benn waay ñëw rocc jaasi ji yee ko mu jóg taxaw waa ji ne ko man yamna'uka minni ku la mun a musal mu ne ko allah yàlla waa ji tiit tram rëñi yonent daa jaasi ji daanu yonent ne cas jaasi yi ne ko man yamna'uka minni mu ne ko baal ma waa ji dem ba mu demee ba egg këram dane ki gën ci nit ñi laa dajal tey muy expliqué di expliqué ñooñu ne ko ne kooku mooy yonent bi mu daw indi waa këram yëpp daal di tuub kon lan la yàlla wax yonent bi ci alquran xuzil afa wa arid anil jahilin xuzil afa wamru bil maaruf wa arid anil jahilin jëlal njëggal del bale yow yonent yonent musul mer ci ay mbiri boppam kañ la daan mer bu ñu xottee xorma lislaam ku bëgg a roy yonent bi del baale munoo wax da ngay da ngay da ngay roy yonent bi ba pare te ku la xool rek nga mer ku la xool rek nga mer munul nekk da ngay jéggale di jéllale comme yonent bi ni mu ko doon defee beneen bi mooy ar rahma yërëme da ngay am yërmande irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf waa asamaan yërëm leen arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yërëmaate yàlla moo leen di yërëm man man laa yurham laa yurham ku dul yërëme kenn du la yërëm yonent bi yàlla li mu ko tagge ci alquran mooy fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalb lan faddu min hawlik wallahi boo dul woon yërëme kon kenn du la wër yonent bi amoon na 124 000 sahaaba ñoom ñëpp dañ doon xëy di ko wër te wax musta wax kenn uh musta wax kenn cam musta wax kenn da ngaa bëri loo fii ñëw moo tax yàlla ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum kii laqad jaakum jàngeen ko yàlla mu ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum waaye harisun alaykum bil muminina raufur rahim kon soo bëggee roy yonent bi da ngay nekk ku yërëme da ngay am yërmande da ngay ëmbal waa kër gi yërmande ëmbal doom yi yërmande ëmbal soxna si yërmande ëmbal waa quartier bi yërmande ëmbal jàkk ji yërmande munoo wax da ngay roy yonent bi ba pare te yaa gën a xat xol ñëpp doo yërëme munul nekk da ngay yërëme juróom-benneel ci jikko yi ñu war a yore roy yonent bi mooy alwafa alwafa di matal respecter rendez-vous yi allahu akbar xoolal tey ñun dañoo alko bañ naan rendez-vous sénégalaise rendez-vous sénégalais rendez-vous sénégalais alwafa yàlla mu ne wa awfu bil ahd inna al ahda kaana mas'ula respecté leen dig respecté leen su ngeen waxee respecté leen rendez-vous yi ñun heure bu neex la nii lu la neex ngay def fenn dong ngay respecté heure bi tubaab bi bu la nee huit heures ngay xëy moo tax ndeysaan gars yi fajar lundi matin jàkka ji day fees mardi matin jàkka ji day fees suba gi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche gars yi dañuy grâce matinée tey tubaab bi wootewul yàlla woote yàlla ba lëndi bu lëndi jotee nag ñu ne dañuy nax yàlla jàpp dem jàkka ja bu ñu génnee jàkka ja jël oto dem liggéeyi fekk lan moo tax ñu teel a yeewu du yàlla de liggéey bi moo tax ñu teel a yeewu mardi teel a yeewu bu dee élèves yi huit heures pile fekk la biir classe nga toog yàlla tubaab moo woote huit heures pile daf ma fi fekk lu tax bu yàlla wootee waxtu yi juróom kenn du ko respecté ci jàkka ji xanaa xamoo bés a ngi ñëw danañ la yóbbu jàkka ji te du la neex danañ la yenu ci biir néeg bi yenu la ñeenti ponkal juróom yëkkati ba ci kaw génne la ci buntu kër gi yóbbu la ba ci jàkka ji ubbi morgue bi dugal ne yàlla waa ji da doon bañ a ñëw indi nañ ko kon ku yeba wuy ji yàlla balaa ngay dem par force bés a ngi ñëw di nga dem par force gis nga ñun ñu toog fii ku ciy dégg ñuy nodd ngay romb jàkka ji bañ a dem bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw fal force di nga wuy ji yàlla bu la neexee bu la naqaree sala wela sa welaak ñalaw ma nan ara ma nootoo allah sa rondama a yaltinama galle o a tellinama leesoma ma nootoo yàlla walla kon nan góorgóorlu bu nu déggatee waa ji di woote ki ne hayya ala sala ku muy woo hayya ala al falah ku muy woo yow mii lay woo ak man man ak yow yow ñun la ñuy woo man ak yow ñun la ñuy woo yeneen bi nee na la salata li jaaril masjid illa fil masjid ku dëkk ci wetu jàkka yi soo doo dem jàkk yeneen bi ne boo jullee sa kër amoo julli beneen bi ñuy roy yonent bi mooy al amaana nañ am kóllëre kóllëre nit day am kóllëre wa sidq nan dëggu bokk na ci liñ tardeel mooy amuñu kóllëre du dëggu wunu dañuy tricher rek tricher di gëm-gëmlu di làmbatu jéemantu di di jullintu di woorantu loolu amul benn njëriñ da ngay dëgg ci li nga nekk gis ngeen Aboubacar lan moo taxoon mu am li mu am as-siddiq dafa dëggu dafa dëggu moo tax yonent yonent bi tuddee ko as-siddiq kii moo gën a dëggu ñëpp ñu ne ginnaaw nit ñi ginnaaw yonent yi Aboubacar moo gën ci doomu aadama yi wallahi ma wataat al ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr ginnaaw yonent yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dox ci kaw suuf aboubacar la gën dégg ngeen li ma wax la ginnaaw yonent yàlla muhammad ak yonent yi yàlla yónni kaw suuf ku fi dox mbubbu aboubacar moo la gën su ma waxee loolu nag koo xalaat sa xel rek kooku ci la bokk aboubacar a ko gën ndax yonent bi moo wax loolu wala gëmu leen wax yonent bi ah ca kon mag yonent bi wax loolu sooy xeex demal ba Medina nga dem bàmmeelu yonent bi nga yëkkati ko ngeen xeex ak moom ndax moo ko wax beneen bi mooy as-sabr muñ na la ñuy waxee dañuy roy yonent bi te duñ muñ te muñ ñett la muñ jafe-jafe yi muñ bànneex yi muñ jaamu yàlla tey ñun ñëpp ñu ne ay julli lañ waaye mënuñoo muñ jaamu yàlla jaamu yàlla mënuñu ko muñ foog nga muñ nelaw yi ndax nga mën a julli ji fajar foog nga muñ bëgg-bëgg yi ak bànneex yi ndax nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala naka la ñuy waxee dañoo mun a muñ te problème yi duñ ko muñ duñ ko gérer bëri na tey waa benn waaye bu fi tux cigarette mais gars yi temps yi da ngay tux de non problème yi bëri quoi mooy tux ndax ma fàtte affaire yi quoi way est-ce que cigarette day fàttaloo nit problème fan ngeen jàngee nañu ne cigarette boo amee problème boo tuxee si problème bi dem di nga gis sax benn élève bu mokkalul leçon di tux quoi frrr pour booy pour texte bi ñëw quoi texte bi ban texte ak a bëri yooyu yëfu dof la texte bi da lay xaar nga tux ba pare du- dara du ñëw ndax cigarette du indi texte cigarette du tax problème dem ñaata nit ñoo fi tux yàmba ñaata nit nga gis ñu naan sàngara booy xoolal xam naa ni ma ciy génne dama naan tat wax paa bi raayit tat laay def fan ngeen mës a gisee ku ne tat di wax raayit ñu leen ma fan ngeen mës a gisee ku mandi di wax lu jub amul fen bu nax suñu bopp yenn yi complexe la cigarette ñu bëri ñu koy tux fii ay complexe lañ gis nañ ay gaan jaar fi di ko def rek léegi jigéen ñi sax dañuy tux ndax bëgg ñu ne leen yow waaw yow la yow la nga gis jigéen juy tux jigéen am na taar leneen lu koy rafetal lu dul cigarette jigéen ña rafetoon démb jigéen ña amoon taar du cigarette moo leen rafetaloon nan delloo suñu xel mun nax suñu bopp doomu ndey yi mbokk jullit yi bu ñu bëggee roy yonent bi ci ay jëf la ay action la action ay jëf mais du ay waxu kese roy yonent bi ci muñ roy yonent bi ci bil ibtisaama ci leeral kanam ak muuñ yonent bi ñëpp a seede ne kanam gi dafa meloon ne weer leer nañ rafet yonent bi nee na cëpp màkk ñëw midin jóge màkk ñëw midin ne cëpp benn waaye dégg na yonent bi ñëw na pour mu dem xool kan mooy yonent bi dafa ñëw fekk ñëpp toog mu ne faram falammastabantul wajha araftu anna al wajha laysa bi wajhi kazzab mu ne dama ne tëll rek xool nit ñi rek ba ma ne jàkk ci kanam gi rek ma ne kii la waajaa ngi nii kii la waajaa ngi nii wallah kanam gi rek moo wan ne kii kooku la mu nax suñu bopp munoo nekk jullit sa kanam gi lëndëm ñuul kuk su la nit di ro- su la nit séenee ngay ñëw sax day mooy day mooy ca ndiku laa tastaxqiranna min almaarufi cheyan walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq bul xeeb ci njekk dara nga dajeeg sa mbokk amoo loo ko may amoo loo ko jox amoo loo ko wax mais nga leeral sa kanam ba mu ñeme la olof yi nee nañ kanam du kaso waaye kooku tëjal mu xam ko xanaa xamoon nit dina jóge fu sori bëgg a yendu sa kër ñëw asalaamualeykum waaleykum salaam bi rek mooy tax mu ne dama fee jaaroon rek dama fee jaaroon waaw dama fee jaaroon rek fekk moom bi mu ñëw lan la waxoon waaye bi mu ne asalaamualeykum fay biñ ko fay rek moo tax mu ne waaw waaw man de dama jaaroon ni day génne la ilée ñeen dëkk kii nii la mel beneen bi mooy talaqatul wajhi leeral kanam yi di muuñ julit day muuñ al ibtisaama julit day leeral kanamam benn waay dafa xëy rek daal di lëndëmal kanam gi ñun koog yéen ne ko yow lu xew maali araka abus mu ne dama ana saim dama woor yonent bi ne ko koor du mbugal koor du mbugal fii di nga gis benn sénégalais woor rek mais booy la la non waaye dama woor quoi kenn du loolu mooy lan da ngay dee wala koor mbugal la koor jaamu yàlla la waru la tere sangu war la tere diw war la tere sol lu rafet waru la tere xeeñu parfum waru la tere liggéey yi comme ni nga mel nii soo waree noonu nga war a mel amul changement beneen bi mooy xusnul xulq suñ bëggee roy yonent bi dañuy rafet jikko suñu jikko yi dañ koy rafetal dañuy rafetal suñu jikko yi rafetal suñu comportement rafetal suñuy melokaan suñuy wax ci kër gi ku fi gën nañ ne diw a fi gën diw moo gën ci kër gi waaye ñu ne yow nga ne yaay roy yonent bi kër gi yaa fi gën a bon loolu du dëgg kon yow royoo yonent bi xoolal keneen xusnul muasara dund ak nit ñi dund bu rafet sujaa njàmbaar tadihiya sacrifice al adlu maandu wal insaaf wa suura hubbul amal wa saay yi yëpp ay jikko la yoo xam ne suñu bëggee roy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam doomu ndey nañ ko roy ci kon kàddu gaa ngi noonu dama doon maa ngi gàttal waxtaan bi et loolu la ma mbokk mi waxoon 30 ñu arrêté 30 ñu def pause def naa ñetti 30 yëpp yal na yàlla def ñun dégg ak topp ñoo ngi ziyaare mbokk jullit yëpp ñoo ngi jéggalu su fekkee wax ji am na ko mu déranger in aradtu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
léegi boo amee ay